li ñuy wax nag ngir ku ci bëgg a mucc ci mbirum jabar xadis bu wér la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku xëy julli fajar ak mbooloo képp ku julli fajar ak mbooloo mi ah yaa ngi ci kaaraange borom bi tabaaraka wa taala dara luy lore du la lor loolu benn la beneen bi ci des mooy falaq rek naas ak ixlaas lu ko ëpp doole boo ko saxoowee boo jullee fajar nga jàng ko ñetti yoon boo jullee tisbaar bu nekk benn yoon boo jullee tàkkusaan benn yoon boo jullee timis ñetti yoon boo jullee gee bu nekk benn yoon ixlaas falaq ak nga saxoo ko di ko jàng ci julli juróom yi fajar gi ñetti yoon timis gi ñetti yoon yi des yëpp bu ne benn yoon loolu kaaraange ëpp ko doole ci jullit la ca des nag mooy nga jël sa xol wékk ko ci suñu borom xam na yàlla mooy def di dindi ku am yàllaa ko jox ku ñàkk yit suñu borom moo ko xañ